kilifa yaa ngi jël place juge kilifa. gis nga foog ñu def évaluation. il est bon bu ñu nekkee dans un pays. ñooy daw ba mu ñu def évaluation. Prodac amoon na. oui kii moom du nekkul le premier directeur. dafa am ku mu wuutu. Prodac ñëpp xam nañ scandale bi fa am. Sénégal yi teg gis kii bi mu ñëwee. da nga am ay preuves allant dans ce sens. man dama am ay preuves. justement vous avez été interpellé par rapport à euh, ci trente mille emplois peut-être yi euh, Omar Faye euh, soulevé euh, vous avez dit que di nga ci di nga ci répondre qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse par rapport à ça. bon déjà dama bëggoon euh, wax déjà sànq ci li nga xam ne moom la kilifa wax man may am seize ans de dew ma woon ñu may am seize ans maa ngi def day jàng pour jéem a jëriñ sama réew loolu je voulais quand même le préciser macha allah boobu ba léegi maa ngi jéem a góorgóorlu ci liñ ma dénk ma ciy jéem a fexe euh, liggéeyal président liggéeyal réew mi te du am benn difficulté. li nga xam ne bëgg naa ko leeral ci avant muy répondre euh, euh, saa kii li mu wax. Omar Faye li mu wax. yaa ngi wax sànq di dugg ci ay taux d'endettement. Mhm. Sénégal amul problème mu dem lépp ci àll bi amu ko te dama lay leeral foofu. man damay wax économiste laa li may wax dama koy wax xool nit ñi may wax parce que am naa ñu ma daax jàng ñu may salaan télé Sénégal su leboon yi tamit dañoo nekk ci beneen programme dañoo am plafond d'endettement ren lu tax exercice boobu ñu def ko parce que dañoo bëgg régler problème bi te duñu crever suñu déficit waaw waaw bàyyil waa déglu rek plafond bi ñun ñoo ko fixeel suñu bopp 3 pour cent ne fii lañ bëgg mu yem non non man je te parle pas du taux d'endettement <laughs> bi nga xam ne moom la ñu namm am dañ ko yemale ñun ci benn plafond bu 3 pour cent boo xam ne ñun ñoo ko bëgg yemale foofu donc loolu dafa àndut ak endettement yuy yokkaat mais nekkul ñàkk dem ci terrain bi ñu labal la xaalis donc loolu quand même naa ñi nga xam ne ñoo lay wax ci affaire économie noonu ñu gën a comprendre loolu maintenant euh, li nga xam ne moom laa bëgg wax ci interpellation mi moom muy ñaari interpellation d'ailleurs mooy mu ne travaux Sangalkam mi dañu arrêté ah. loolu Omar dama lay ñaan benn affaire su la neexee man ak yow suba suñu xëyee. man ak yow ñu dem sàngal kaam. d'accord. nga nangu waaw waaw bàyyi ma ma wax rek waaw bàyyi ma ma wax waaw bàyyi ma ma wax bàyyi ma ma wax man je euh, dama bëgg défi laa bëgg def ak yow. waaw ah. bi xam nga lan la. su la neexee man ak yow nañu dem sàngal kaam suba ñu def foofu selfie. xool ndax ñun benn nit wala ñaari nit ñoo fay liggéey su ko defee yéen ngeen jël aussi engagement suba lundi vendredi ngeen njëkk publier loolu nga xool ndax Sangalkam ndax dafa am arrêt wala amul arrêt loolu je te défie suba voilà suba nañ fa dem xool li may leeral nag pour sénégalais xam ko bul tax ñu jël waaw ñun ñëpp nañ fa dem ñun ñëpp nañu dem foofu ngeen xool fa laa jóge tey xaaral xaaral xaaral xaaral rek ma wax parce que waaw bàyyil ma wax rek waaw bàyyil ma wax waaw dinaa ñëw ci loolu da ngay tey Omar da nga déglu de man ba ngeen wax li may wax mooy man tey Sangalkam laa xëy man Pape Malick Ndour laa koy waxee. Hmm. maa ngi fa dugg 11h maa ngi fa dugg 14h. Hmm. toog naa fa waxtaan naa fa fekk naa fa plus de 40 personnes yu fay liggéey. te dag ba newul démb depuis un an et demi ñu koy def depuis un mois et demi ñu ngi koy def. Hmm. pour dire non man li may wax télé laa koy wax ah sincèrement man quand waxu caaxaan taxuma wax li may wax dëgg la. Ah, voilà léegi suba su la neexee nañ dem. léegi a litige foncier waaw parle du lay leeral ne continue pas dama lay leeral damay confirmer effectivement am na fa. ba pare ñu gagné leen. waaw ngay bàyyi ma wax la waaw da ngay déglu nag xam nga Omar soo bëggee xam da ngay wax. xam nga man dëgg rek laay wax. su ma neexoon ma ne litige foncier effectivement am na fa mais lan moo waral litige foncier bi loolu aussi il faut le dire président Macky Sall moo jël tey nag litige foncier bi dafa demee foo xam ne bu yàgg ba dañ doon gis. mooy ay nit yu ñëw di nangu ay suufu ay nit ñu ne ñii dañuy jaay doole mais li am ni mooy président Macky Sall moo jël quatre cent hectares jox ko ndaw ndakaaru njaay ne leen dama bëgg ngeen am dak comme ñëpp ñu koy amee jël ko jox ko léegi nag litige bu am diggante état la ak benn waay bu ne moom moo ko moom foofu loolu ñu ngi koy réglé ak état point loolu nangu naa ko du ma nangoo ne am na li foncier waaw mais bàyyi loolu ah, waaw naa fa ñëw kaay ak maa a tontu loolu litige foncier bi décision bi bi am xamala la ah. dafa am condamnation par défaut man la ñu porté plainte déglu rek mox la da ngay tey mox la ma xamal la soo xamul dangay xamal dafa am condamnation par défaut parce que waa juy plainte au lieu mu plainte état Pape Malick Ndour la plainte te man fekkuma fa man ma def opposition lu tubaab di wooy opposition du appel de opposition maanaam ah da ngeen maa jugé te man fekke yow ma def opposition bu ma defee opposition AGE jël dossier bi ne Pape Malick il a agi en qualité de Prodac est une institution de l'État état la mais Pape Malick yow new ci voilà la réponse soo xamuloon woon nag heureusement nag wax nga ko leeral nañ ko soo amaatee beneen rappel wala ñi lay wax di la envoyé message bu ne la envoyé message waa employé yi naa si ñëw benn par benn rek waa man ciy wax dina leer léppay leer vingt neuf milliards yi yéen na am na scandale kilifa vingt neuf milliards yi quatre dag la waroon def li ma mën a nangu mooy dag yi tardé nañu loolu dama koy nangu parce que effectivement ñu koy wax retard am na fa te foofu état def na fa erreur état def na fa ay mm, kii na euh, foofu jafe am na fa loolu nangu naa ko mais xam nga lu am solo waa duglu rek naa ko expliqué xaaral rek Amar da ngeen may bàyyi moom waxal da ngay bëgg dama wax waaw dama bëgg nga wax quand vous parlez je vous écoute man damay wax da ngay dul rek waxal ñeent dag la waroon def dagu CFA dagu kër Momar Sarr dagu kër Sambakan ak dagu euh, euh, Sangalkam ñeent dag yooyu la 29 milliards yi waroon def may wax nag ne Sénégal si ñeent yi benn bi pare na beneen bi dama fekk mu nekkoon en retard en 2017 sama jàppale ministre ak jàppale président relancé nañ ko te avant weer bi di dem dinañ commencé production yi mu Kër Momar Sarr Kër Samba Kane nañ ko balaa at bi di jeex di nañ ko inauguré Sangalkam bi ñuy wax ni démarré nañ ko balaa at bi di jeex dinañ ko dinañ ko dinañ ko inauguré man may sampat laaj mhm. maa ngi ñaan Sénégal jour bu ñu demee ba fin dana jot ngeen invité ma man dinaa samp benn laaj laaj bi may samp mooy ban xaalis la ñu defaree ñetti dag yooyu ndax dafa amaat xaalis bu bees wala 29 milliards ya la woon man nag tontu naa déjà tey. 29 milliards yooyu laay liggéeyee point. beneen question boo bëgg lan la ak lan. alors non non dina dina ñëwaat que ñu wax également. ay euh, réponses concrètes apporter des réponses concrètes par rapport à l'emploi des jeunes et je pense que euh, c'est important ñu wax waxu secteur privé. mais euh, bëggoon naa ñëw secteur privé boobu. si si vous permettez. non non je je je ouais, maa ngi ñëw donc Pape Makhtar euh, est-ce qu'on peut dire que tey jii le président de la République euh, par rapport à son discours euh, wane na euh, ne que il peut apporter des solutions par rapport justement à l'emploi des jeunes. non je pense pas parce que tey yaakaar naa ne booy xool rek di jàngat nga teg mbir si xam-xam kese da ngay xam ni carrément que ñoom dañu am problème mu niveau. xam nga tey jii bu ñu nee par exemple nee ne 96 milliards nañuy dépensé ci blé. bii dafa pain. Mhm. par an soixante milliards mooy prix boo xamante ne dañ koy dépenser ci importer lait meew. Mhm. Mhm. alors que daa daara bi boo fa demee fekk fa meew boo demee Jolof fekk fa meew. donc je crois que ni gis nga dafa am yoo xamante ni nekkatu sax ay problème de xarañte maa ngi leen dégg ñuy wax formation professionnelle. mais kilifa tey jii boo demee sa quartier doo fekk ay menuisier métallique. ñoom lan la ñuy def. ñaata xale nañuy former. Mhm. di leen génne ñooñu doo leen fekk nga régulariser leen ñu yore ay diplôme di ko jox nit ñi. Mhm. dafa jar ngay créer ay bâtiment naan formation professionnelle formation professionnelle école de formation professionnelle bañ nañ ko ba ñi nga xamante ni ñooy génn ci école yooyu ci quartier yi nañuy dem fekk benn mbaaru suulee kat toog foofu kooku jàngal ko liggéey mu génn. yow yàlla may na la expertise bi yàlla may na la xarañte bi am nga ñoo xamante ne ay menuisier métallique na ñii ay maçon na ñii ay leneen nañu mais ci formation permanente nañ nañu nekk formation permanente et professionnelle nga nekk ci taa bi ñu lay jàngal nga génn am xarañte bi mais ñooñu tey malheureusement ñu génn uh-huh. ci biti si àdduna bi dem liggéeyi ji hmm. mënuñu dem France liggéey ji ñu dem feneen liggéey ji parce que ñu diplôme boobu donc li ñu manqué mooy diplôme benn kayit bu ndaw bu état bi reconnaître que ni kii am na expertise bi war na mën a joxe ay diplôme est-ce que jar na autant de milliards mhm. ñuy jël dinaan dañ koy def ci ay mhm. bâtiment donc je crois que ni vraiment formation professionnelle waratul nekk ay mbir yoo xamante ni dañuy toog di ñu ko reyeeg wax parce que xale yi ñu ngi nekk ci quartier yi ñu ngi leen di forme mais malheureusement ñu leen di former joxaguñu leen accréditation boo xamante ni dañuy mën a décerner ay diplôme te loolu tey benn commission bu ndaw mënoon na ko def dem ci quartier bu nekk ni kii def na dix ans métier ñëpp nangul nañ ko xarañteem war na mën a former xale yoo xamante ne bu ñu génnee dañu yor diplôme yoo xamante ne dinañ mën a liggéey sous région bi wala bu état bi tegatee marché daañu mën a soumissionné gis nga mbir yi du dara mm-hmm. xam-xam dafa soriwul mm-hmm. mais boo ubbeekoo nit ñi waxtaan ak yow jox la ay solution mm-hmm. quatre-vingt-seize milliards nga koy def ci importation blé Abdoulaye Wade commencé woon na ko jéem di bay mais mënoo koo bay bële nga koy bay comme sénégalais dañuy consommer huit huit huit huit huit tonnes de de de de de de pain. par mhm. par par jour. munoo fexe huit millions de de de de de baguettes de de de pain par jour. Mhm. mënoo fexe ba ñu tey jii li ñuy consommer ñu koy produire. kilifa mi ngi nekk ci agriculture mais la moo tax doo ko dooleel yaa ngi wax léegi entreprise yaa ngi gis jooni joonee ngi daanu doo ko nationaliser. nga fexe ba nii comme entreprise bi dafa nekk ci fay te am na autant de d' employés te man dama bëgg xeex chômage entreprise dama koy nangu def ko sama moomeelu bopp fii léegi cinq ans wala fii léegi dix ans ma delloo ko borom ni muy amee ci bitim réew France ba Covid bi ñëwee ñu commencé gis ay difficultés dañu jël seen entreprise yu bëri ñu renationaliser ko donc dañu ni bu nekkee dañu bëgg dañu jug pour régler problème chomage problème chômage bi yomb naa régler demal ci quartier yi ci gox gaxaat yi nga fekk ñi nga xamante ni dañuy def formation professionnelle di jàngal ay nit ay métier ñooñu tey jii nga fexe ba jox leen ay diplôme diplôme yooyu tey jii dina permettre xale yi ñu dem liggéey feneen fu du Sénégal loolu déjà benn la mhm. bay bay kenn du ci encourager nit retour vers l'agriculture ak yooyu yëpp jaru ko bu ñu gisee ni kilifa mi nga bay am ci ay milliards kan moo dul bay wallaay xale yi bu ñu gisee ni benn affaire a ngi moo tax ñëpp di def ay affaire de euh, transfert d'argent ak ay euh, multiservice kenn bu gisee ni lii dox na ñëpp a ciy daw tourné wul ba. donc il faut savoir susciter l'intérêt mais c'est ça mënoo jël Abdoulaye Wade d'accord amoon na idée yi amoon na aussi euh, peut-être envie bi pour mbir yi changer mais xoolal lu mel ni tracteur nga jël jox ko koo xamante ni mosul dawal vélo lan la koy def. <laughs> bu nekkee boo ko joxee tracteur ba noppi doo ko accompagner am ku koy jàngal di ko naan tracteur bi nii lañ koy utiliser mais boo ko joxee tracteur bi da koy joxe mu yàqaat ko. donc je crois que gis nga bu nekkee dañuy jug pour régler problème mu chômage bi problème mu chômage bi tey jii yomb naa régler boo demee fac droit ñoom sale man leen di nuyu au mhm. ñoom dañoo jàng ba yori seen diplôme ñoom xanaa kenn dootu waxatu waxu. waxu l'association des diplômés sans emploi. imaginez koo xamante ne maîtrisard la en droit. Mhm. Sénégal nee nañ la dañu am problème greffier. dañu am problème magistrat dañu am problème juge d'instruction tax du ñu ubbi ay ay ay concours xale yi nga xamante ne boobaa dootuñu waxati Sénégal waxul dix cabinet d'instruction mhm. boobaa dootuñu waxati waxul lenteur administrative donc je crois que ni mbir yi nekkul lenn lu dul dañuy tappale nanguwuñu liggéey bu ñu bëggee liggéey te liggéey rek tax leen jug solution yi xam nañ ko bu baax a baax a baax mhm. mais jël autant de milliards état sax moo amul vocation bu ma déggee ñi naan xam naa ne économiste la dina dina dina dina wax Macky Sall mu changé d'air entrepreneuriat rapide mooy lan entrepreneuriat fan am dafa am ay temps yu mhm. xamante ni saa waay balaa ngay entreprendre da ngay nga def étude de marché xool li ngay def mais entrepreneuriat rapide kay xam nga lan lay indi endettement rapide. mooy ñii nga xamante ni tey jii DER bi dañ leen jox xaalis te mënuñu leen fay parce que endettement rapide boobu moom moo fi am jox nañ leen ay deux cent mille imaginer koo xamante ni budgétisé na programme am ci trois millions nga jox ko trois cent mille francs kooku loo ko defal. Mm. bu si jëndee dem ci soirée Wally Seck dem ci feneen ak feneen et puis koo xamante ne préparé gul ci yore yenn mbir yi. yow nga jël ne da koy jox je crois que ni gis nga daanelee foofu xool marché ambulant yi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, VDN bi ci corniche bi ak feneen ak feneen. Mhm. mais lan moo la tere yow nga ubbil leen fii CICES bi nga xamante ne benn yoon lay ubbi ci un mois. nga ubbil leen ko defal leen foofu ay box yoo xamante ne un mètre carré la ni leen par weekend am ngeen fi deux jours yoo xamante ne da di ñëw liggéey si. sénégalais yi dem di leen fa fekk comme nu mu amee boobaa daañu bàyyi tali bi te dinañ mënal seen bopp ba mënal ñeneen ñi nga xamante ne dañ nekk seen ginnaaw donc je crois que ni gis nga mbir yi mhm. affaire yi méttiwul mais président Macky Sall bu nekkee xalaatul lii nag wax dëgg yàlla war nañu mën a commencé nag di xam ni vraiment cuune moo ne ci kaw te ñu koy jàppale aussi seen capacité man sama seen xarañteeg seen seen mhm. xam-xam yi rek seen yooyu bu ñu jógee di wax rappeurs mais au moins rappeur sax dina xalaat ci bind mais yow ñu def le directeur boo xamante ni sax amoo benn xam-xam yow benn kii bu ndaw sax dag bu ndaw sax mënoo koo développé alors euh, euh, jaxono sax mënoo koo bay dañoo gis ne que professeur problème mu euh, chômage bi dafa dafa traverser amaana peut-être euh, euh, régime yëpp aujourd'hui on attend euh, des solutions structurelles yoo xamante ne dina permettre ñu xeex ko même si mënuñu ko éradiquer parce que même dans les pays développés mm. ñu ngi waxu de de chômage peut-être c'est ce qu'on attendait aujourd'hui de l'État du Sénégal waaw <coughs> mais xam nga man lii suma avis mm. système de gouvernement bi ñu am doon système économique système politique système démocratique yëpp système bi feek changé wuñ ko. lu luñ ci dugal ci ay milliards du feeñ xam nga lu tax. parce que système bi dafa am ñaari feebar. mooy dafa am clientélisme am népotisme. oui xam nga euh, wax naa ko fii teroog l'autre bi mu fi toogee dama koy fàtte ki ñu fi invité woon xaw ma directeur ban agence la. mu def ay analyse am ba pare mu ne mais le problème mooy est-ce que ça va être entre de bon mains. gis nga suñu problème yëpp loolu la. Mhm. on a vu à l'université des doyens qui sont presque et des recteurs plus riches que l'université. On a vu des chefs d'agence qui sont mille fois plus riches que les gens qu'ils doivent, à qui ils doivent donner de l'argent. gis nga dañu bàyyi l'emploi des jeunes mais un pays mënta toog te du def ay ay ay ay réalisation loolu mënul nekk. mais le problème c' pas parce que est ce que def nañ réalisation tabax nañ ñaari dak tabax nañ ñetti dak non problème bi mooy. Mm-hmm. bi ñu commencé nekk indépendance ba tey ñu nekk presque ci 60 ans nit judd na ci am ci doom ba am ci jeune. on parle de l' agriculture. mais nee dugal dans le Saloum dugal dans le Sine dugal dans les bas-fonds sénégalais yi aujourd'hui on parle de seuil de la pauvreté na milliards yi ñuy dégg yëpp parce que milliards yooyu. dañ koy jëlee di ko def ay seminaire milliards yooyu dañ koy jëlee di ko def xolal ay ay ay ay ay affaire de camaraderie yi xam nga loolu mooy lan gis nga parti état fekk parti état jógewul fii du dem tey jii nii waa PDS li doon def waa parti socialiste di ko def moom la waa APR di def lépp loo xam ne nii génn nañ ko ci réew mi bu ñëwee dañ koy jox seeni client li ñu jox ko seeni mbokk waa ñi nga wax léegi association des xawma leen diplômés chômeurs mais joxe nañ ci benn exemple nee ñoom ay concours xawma de greffe ay concours de notaire bi ñu les gens se sont tellement organisés que seuls les enfants de notaire qui travaillaient dans les cabinets de notaire pouvaient faire le concours aujourd'hui beaucoup de concours gis nañ ni dañ on parle de recruter 5000 enseignants mais je vous dis que aujourd'hui il y a quelques professeurs de philosophie qui sont sortis avec leur diplôme mais ñu ngi fii toog kenn jëlu leen ils courent te dañ leen a ba pare. Mm-hmm. damay dégg Bougane Gueye Dany di joxe benn exemple gis nga Pa li ma wax dafa leer gis nga développer un pays dafa laaj éthique. Mm-hmm. Amartya Sen prix Nobel de l'économie dafa wax mu ne c'est la vertu ki renforce l'économie te ñun man duma tudd ay nit mais suñ gestion pays dafa àndul ak vertu. ku nekk da ngay def li la ne xoolal au temps de Wade au temps de Macky ñaata scandale de milliards moo fi nekk da dégg déggatoo ay millions mais da ngay dégg ay milliards quarante milliards vingt neuf milliards quatre vingt seize milliards en ce moment boo duggee ci société bi gis nit ñi mënatuñoo lekk mënatuñ naan tout est délabré Sénégal yi nit ñi seen bopp dañoo délabré ngaay man bi may nekk étudiant laa njëkk a jënd ceinture ngaay mais takk naa ko deux ans trois ans avec fierté aujourd'hui Bougane Gueye Dany joxe na fi benn exemple mais ngaay ñu ngi fii tout le temps dañuy jooy depuis plus de trente ans ñëpp di leen dégg kan moo leen mos a jàppale alors que aujourd'hui xoolal chinois yi lu ñuy jël di ko investir ci ay milliards tey foo dugg tout le monde porte chinois mm-hmm. tout le monde consomme chinois ñun Sénégal bi muy Sénégal ba tey mosoo gis puso sax ñu def ci made in Sénégal mm. or la fac de la science elle est là la faculté des économies elle est là la ne nag mi ngi fi mais pourquoi xam nga lu tax parce que amuñu volonté politique bi Babacar Ba dama mos a mu am ku koy nettali mu ne gouverner un pays c'est un problème de générosité te gis nga suñu élites yi li Zeno di wax c'est des élites corrompues amuñ benn générosité si ñun ñoom ñëpp ils sont ultra ay ay ay apparence de richesse la ay oto la ay kër la ay parking ay gu ay géwélu président boo xam ne da ngay dem këram ñu ne la il a tant de voiture jàpp ko ci aéroport mu yore ay millions dama doon yóbbu sama yaay France mais c'est-à-dire que comment voulez-vous dans un pays ces choses là se fassent ñu respecter nit ñi man je crois que gis nga Sénégalais yi Macky Sall il appartient au passé mm-hmm. li ñu war a def mooy je ne sais pas avec qui parce que man je ne mise sur mm-hmm. xam ne nii li Sonko waxoon man toujours dama koy rappeler Sénégal yi Sonko avait di quelque chose d'important il faut éviter les éternels nouveaux départs Ablaye Wade ñëw espoir bi topp ko fu mu mujjee ñëpp xam nañ ko. Macky Sall ñëw indi yoonu yokkute lu mu wax euh, gestion vertueuse et sobre. yoo xam noo koy transformé gestion sobre et vertueuse. waaw mhm. gestion sombre et vertigineuse. et vertigineuse fan la mujjee léegi Macky Sall bu demee est ce que dañoo war a jël kilifa mu ñëw nekk président après cinq ans après amba le président vive le président gis nga Sénégal yi nañ ut fulaak fayda xam ni ñii. ñu ngi toog ci seen deraanga ñu ngi tedd seen njaboot a ngi tedd ñu bàyyi leen dans la banlieue bàyyi leen dans les écoles aujourd'hui quand on parle d'école quand on parle d'éducation nous qui sommes des enseignants nous savons que l'école n'existe hmm. ministère de l'éducation nationale il n'est le ministre d'aucun ministère parce que éducation ci boppam moo amatul ci école bi parce que talatuñ sax xale yi hmm. léegi xam nga ñoom lu ñuy def instant bi nii hmm. mooy séddoo affaire bukki lañ koy def <laughs> bii bukki bii ñuur bii sàmb bii ku ci njëkk teg naa sama loxo loolu nag yéen sénégalais yéen ko war a bañ ba nga xam ne keneen ku ñëw ak ku munti doon duñ ñu tag loolu parce que nag sa commence à s'éterniser comme disait le juge Kéba Mbaye l'éthique doit guider nos actions loolu nga bëgg a wax ah, euh,